dali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo tey jii la àtte bu Ousmane ak Mame waaye nag gis bopp marale ca tribunal ba moo gën a yomb gis fa Ousmane Sonko journal bi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul Pastef niki démb sa sigi coor la toll di wax askanu Sénégal ci lu jëm ci àtte bi nga xam ne tey jii la dox digganteem ak Mame Mbaye Niang ci kanamu cour ci lu jëm ci 29 milliards yu Prodac yi waaye nag moom njiitul Pastef nee na demul tribunal tey demul tribunal ëllëg lan moo ko waral mu xam ne tëddeewul njaaxaanaay lu ko neex justice boobee su ma woowee du ma wuy ji loolu la Ousmane Sonko wax ni ki démb nee na ma tribunal tey déw ma tribunal ëllëg ndax dafa gis na justice bi maanaam dafay parparlooy journal bi di Rewmi Quotidien nee na njiitul Pastef di Ousmane Sonko ni ki démb radical na lool lool lool journal bi nee moom Ousmane Sonko daan nay dànkaafu ñi xam ne ñooy magistrat yi nee na leen yéen magistrat yi yéen ñi a war a atte mbir mi bu ngeen jàppee ne da ngeen di nax seen bopp maanaam ci nii wala ci na mbir mi du yombee Macky nee na ko Macky neexul ba neexul waaye jeexal nga demal naka demal Macky Sall jeexal nga defal ni comme yeneen président yi nga xam ne ba ñu pare dañoo dem daal di toog ci seenum réew tranquillement wala ñu dem def yeneen soxla bañ a am yenn jafe-jafe Ousmane Sonko ni ki démb nag doon na mel lu yedd Macky Sall nee na ko gis nga ñi nga xam ne say jege ñaale lañu ñooñee bëgg ñu la maanaam dañ lay dugal ci musiba goo xam ne maara détaal yi te nag jamono ji war na ñoo moytu di dugal Sénégal xam ne mën na ñoo xam fan lay commencé waaye nag mën na ñoo bañ a xamee fan lay jeex yéen a kaay gii de libération Ousmane Sonko ne nee na du wujjee nee na lii nga xam ne moom la gis maanaam du justice waaye banditisme judiciaire la yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora xëy duñu xibaar ni Ousmane Sonko ni ki démb wax na waaye nag résistance gi nga xam ne moom la Ousmane Sonko yàgg wax ni ki démb daat na koy waxaat ndax nee mbir mi moo toll foofu yéen kaay gi de La Tribune bugaan gi dañi wax ne Sénégal toll na foo xam ne maanaam kenn ku nekk war naa jël ay responsabilité gi nga xam ne moo fi nekk loolee war naa nekk responsabilité sénégalais bu nekk njëkk mu ñu fekk fa Ousmane Sonko nee na je ne répondrai plus à la justice je n'ai jamais volé Ousmane Sonko nee na musta sàcc je n'ai jamais violé Sonko nee musta violé moom Ousmane Sonko nee na musta diffamé kenn maanaam musta yàq deru kenn yéen kay gi de la sëxi di ñu xibaar naan lu jëm ci wàllum ëllëgu Ousmane Sonko ci lu ñeel wàllum politique tey jii la ñu ko joué ci kanamu cour d'appel journal bi di Sud Quotidien xëy di ko dëggal yéen kay gi di Source A nee na en tout cas li am ba desal tey jii la ñuy àtte Ousmane Sonko waaye nag ab takk ndeeram moom kenn du ko gis ci diwaanu Ndakaaru ndax Ousmane Sonko ma nga sa diwaanu Ziguinchor te tey jii si sax moom jiitul Pastef dafa woote ab réunion conseil ci mairie bu Ziguinchor yéen kaay gi nee ñi nga xam ne ñooy avocat yi Ousmane yi amul benn convocation boo xam ne ñoom jot nañu ko yéen kaay gii de Les Échos nee na muy tuulee dañu koy dàq avocat Mambay Ñaay ñoom nag ànd ñu benn yoon ngir nag ñu dàq li nga xam ne mooy àtte bi yéen kaay di Walf Fadjri xëy duñu ñoo xam ne ñoo nekk bi ma ne la ñoo xaar Macky Sall ba mu ñëw Londres naan ko Macky dictateur Macky dictateur Macky dictateur libéré ma ne la gis nga coow li mel ne tulleeg male yéen a kaay gi de libération xëy ñu xibaar naan ñu Cheikh Mbacké Gadiaga cib garde à gis nga waa dig ñoo ko teg loxo ci lu jëm nag ci tuuma yoo xam ne tuumaal na ministre Abdou Karim Fofana journal bi de Le Quotidien yor yora xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy waa groupe Walfadjri ni

génne na waa sûreté urbaine nee ma nekk garde à vue yéen gi ne na li ko waral dafa am benn vidéo boo xam ne mooy jaaba jonge ci internet bi oustaz Assane Seck di sa wax ne en ñaari mbir moo mën a am maanaam Ousmane Sonko dañu ci élection présidentielle 2024 dëkk bi tàkk ñaar kay moo mën a am Ousmane Sonko bokk ci élection yi gagné élection yi wala mu ñàkk see bokk dëkk bi tàkk kaddu yooyee la Assane Seck daal wax loolee moo tax ñu daal koy teg loxo yéen kaay gi di réew Senghor daan nay wax ci lu jëm ci wàllum dialogue bi nee na nag wuy ji ab dialogue maanaam tekkiwul na lépp loo xam ne Macky la ngir bi di direct news Déthié Fall nee na ma réew mi bu ñu ma joxee Sénégal dinaa ko liggéey bam na boy te jamono ji stress social moo am ci réew mi yéen a kaay point ñu xëy fekk fa El Hadji Dia ambassadeur itinérant moom nag jamono ji nee ñi nga xam ne ñooy bi dañoo war a ànd akuk dal waaye nag nee na leen nag di leen wax rek président Macky Sall di liggéey ndax def na ay réalisation ci réew mi yoo xam ne amul benn président boo xam ne mos na ko fee def ci lu jëm ci wàllu dem beeg dikk beeg terre beeg BRT beeg AIBD ak autoroute yi wax na tamit lu jëm ci pont Nelson Mandela ak pont bu Marsassoum Essane Maître Abdoulaye Wade ak secteur privé beeg taxawaay bi ak lu jëm ci projet yi njiitu réew di Macky Sall am ba njiitu mi di président Macky Sall ko sant mu def ci évaluation maanaam ab xayma journal bi di direct news nee na en am ba de Sall jamono ji gouvernement bu Sénégal ñoom ñoo ngi jubilé ci lu jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi ndax dañu jàpp ne am nañu si ay résultats yoo xam ne yu njort lañu ndax ñoom nee nañu lu toll ci 65000 emploi la ñu waxoon ne moom la ñuy créé waaye ëppal nañu ko yóbbu nañu ko ba 66243 102 gi nee lu jëm ci wàllum candidat wax ne yéen ñi nga xam ne yéenee ndaw ñe yéen a war li nga xam ne mooy défi bi te danañu leen accompagner te Macky Sall pareegul ci yéen ndax programme bi 450 milliards la diggante 2021 ak 2023 moom premier ministre bi ci journal bi di Direct News daan nay wax ne Promovilles la lu toll ci 1453 ci ndaw yoo xam ne recruté na ko bu dee AGETIP lu toll ci 2374 ci ndaw yoo xam ne recruté na ko journal bi nee na gouvernement bu Sénégal ñoom jamono ji jàpp nañu ne président Macky Sall réussir na ci lu jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi yéen a kaay gi de la point ministre de la culture ne ko yokk ci engagement bi nga xam ne moom la njiitu réew mi di président Macky Sall am ngir nag moderniser Tiwaawoon ba mu ne boy ministre Aliou Sow ma ngi ko xamle ci bisu ñaan bi nga xam ne moom la ñu jagleloon fa Amadou Mbaye Maodo ci Tiwaanu Tiwaawoon yéene kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy acteur politique yi am nañu audience seen diggante njiitu réew mi tey jii la ci altine ji VIP ak ñëpp woolu nañu leen